suis un internet bu banlieue production amaat contentement di ak ñu nuyu bu baax content émission leçon du couple ak sama bi Assane di la bu baax euh, mbokki internet banlieue production yi ci euh, ci suñu programme émission leçon de couple saison 2. di nuyu di leen weer bi nga xam waaw Assane tey nag moom ñu fas yéene ñëw ci suñu émission comme ni ma la ko waxee rek. Mhm. suñu troisième numéro. le mhm. leçon du couple. Mhm. mais tey nag moom dañuy ñëw pour waxtaan si di waxtaanee liggéeyu ndey ndax léegi moom liggéeyu ndey dafa nekk benn. benn verbe laa ko mën a wax sax boo xam ne nii fu ñu jot rek conjugué ko fa. mooy loolu. léegi lan moo waral liggéeyu ndey liggéeyu ndey lan la. c'est quoi liggéeyu ndey en fait. waaw soxna Ramsu avant tout sant la ci débat bi. Mm. nga indi bu large nag. mais fi may tàmbalee mooy damay jaale mbokki soxna astu yi. Mm. ku nekk xam na kaa bi fi xewoon. ndey la woon rakk la woon jabar la woon ku ne xam ne condition yi fi jógee muy condition yu metti may xamal ni loolu dal ko lu meuna ñak la ci mim rew ndaxte jëkkëram témoin na musul manqué rendez-vous musul manqué ordonnance kon ñom def nañ leen war mais médecins yi infirmiers ñu ñoo deful leen war ma nit ki bu jaxlé ci yow lay ñëw ta bu dawee ci ñew yow ñew ci yow

parce que l'État du Sénégal a injecté 1800 milliards entre 2012 à 2022 mhm. mais tout ça pour ça tout ça pour ça Quand les responsabilités doivent être situées ci non non non quand j'ai attendu le ministre faire encore la de presse j'attendais qu'il prenne ses responsabilités et démissionne parce que dans un secteur

mom soxna atu astu tu ndax yalla yërëm xaare ko àjjana amiin def na liko war ndax manki wul ben rendez-vous jeukeram def na liko war ndax manki wul ben ordonnance kon ñoom gàcce ngalaama kon li dama kay ñaawlu ba ci ba ci fu ñaawlu yam lu ñaaw la tamit may xamal tamit ni luma ko ñaawlu ñaawlu aussi amna na yenn yenn yeneen natangu ay médecin yo xamanteni ni ñu ci wàll ga liggéey rafet xëy na ñeen seen jëf ñaaw mo takal liggéey bi waye mënu suul ñeneen ni ndax am na ñeen ñoo ay jambar lañ ak sha allah rabbi kon buma jël lepp rek xëpp ndam daa bon déedéet am na ñu baax am na ñu mën a ay doomu adama te ñun xam nañ ci dara loolu daal je tenais vraiment à le dire que ni l'État doit prendre ses responsabilités le ministre doit démissionner ou être démis de ses fonctions loolu man loolu ma may neex mais pas ay tax nañ médecin bi wala def nañ kii kii non non na bopp dag dëgg la Assane li nga wax am na solo loolu ah, maa ngi jaale man tamit mbokk astu soxna yëpp dëgg yàlla li leen dal metti na tiis bu metti metti la metti sénégalais yëpp di waxaat tamit sage-femme yi docteurs yi ñoom ñëpp nañu góor góorlu ci seeni patient parce que amuñu lu dul ñoom ndax ñun ñoo leen fa tax a toog mm. kon nañu góor góorlu hôpital boo ci demee du sa du sa sago moo la fa yóbbu mm. fet boo sañoon yow doo dem hôpital lii di hôpital lii di prison mm. yenn lieu yoo xam ne nii tey jii ñaa nit kenn ñaanul yàlla di fa dem heure boo fa demee rek du sa sago moo la fa yóbbu kon ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm famille Astou ñu ngi leen di jaale bu baax a baax a baax a baax di leen ko jaale waat encore une fois metti na léegi nag ñu fas yéenee xuus rek waaw ñu xuus ci débat bi uh-huh. nga indi tamit ponk bu am solo mooy liggéeyu ndey liggéeyu ndey dafa large dafa yaatu euh, bi ma njëkkalee mooy que ni dama ci benn exemple rek ci liggéeyu ndey muy soxna jaariyatullah di waajuru xaadimul xaddim mhm. suñu yaakaar tey ëllëg bi mu demee wuy jë demee kër borom këram dafa ubbi kaanu alxuraan gis sar bi na yàlla naan ab yonent dootul wàcc mu ne waat naa ni kat bu du woon li yàlla wax ma xam ne naa jur yonent mhm. waaye naa fi jur ko xamante ni fu ñu tuddee yonent tudd ko muy xaadimul xaddi. macha allah kenn du xam loolu lu muy wundu ba muy dem daa dem ngir pas-pas. Mhm. dafa dem ngir seey fa dafa dem ngir jaamu yàlla te xam na jaamu yàlla tàmbul moo waral ñuy wax histoire sàkket ba am na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. ku ci mel ni maa mel ni maa faa duwelee. Mhm. waajuru Cheikh Alaaji Malick bàyyi borom bana carré ba xam nga ni ñu melni ñom ñoom dootu fi am man loolu lay bañ Assane gi xam loolu lay bañ ndax dañ ni liggéeyu nday jamono du soppeeku mo ñu naan diina ak jamono ndax nah, yonent sallallahu alayhi wasallam daf ñu bayal ñaar ñu bayal alquran ak sunna doyul de mu yónni ñu ay waliyu mu yónni ay xutba ba fi wax yow nii nii ñu ngi fi jigéen ñi ñoo xamante ne dañoo jël décision kese kese kese pour seey seen biir kër dañ fay seey moo xam taa 18 ans moo xam taa 15 ans adduna mënu changé. waaye loolu bareetul loolu moo yombatul Assane ak fi réew mi toll nii macha allah ñi doon baax ñi ngi baax ba tey. liggéeyu ndey. ba tey liggéeyu ndey la. Mm-hmm. liggéeyu ndey bi mu doonoon ba tey moom la doon. Mm-hmm. waaye léegi comme li ma la wax sànq ne la nit ñi dañ ko def benn verbe. Mm-hmm. fu leen neex lañ koy conjugué. ndax da gis nit di def tooxi duuna. di ci am loolook loolu. ñu naan liggéeyu ndeyam la. pourtant nit a ngi liggéey liggéey liggéey sonn lool. ci biir këram ba àdduna yëpp xam ne kii dafa liggéey. bu juree doom fu mu romb ñu ne ko cam. nit a ngi def lu bona bona bona bon mhm. liggéeyalul dara ay njabootam mhm. fu mu romb ñu ne doom ji macha allah après dañ naan liggéeyu ndey la mhm. kon liggéeyu ndey lan la waaw xam nga soxna Ramsu da la point bu am solo gis nga liggéeyu ndey muy am te muy bari boo toppee réseaux sociaux yi ak rumeur jamono ji da naan jigéen ñu liggéeyu ñu déedéet man gis naa jigéen yoo xamante ni man daf maa yéem te xale la euh, mu ngi tudd Khady Bari jëkkëram tudd na Bari daf ma marqué ci lan ba mu xamee ba léegi mooy ki nga xamante ni bu ko borom këram joxee mille francs dépense bu demee marché bi dafay fukki dërëm da koy indi jox borom këram ni ko lii moo ci des mooy ki nga xamante ni boo ko ay magam wala nijaayam yu am lu ñu ko yónnee facture ñëw da koy fay dem fay te doo jëgam fay naa ko mooy ki nga xamante ni musuma dégg di këram wax baatam fi kaw man daf may yéem léeg-léeg ba ma koy woowee soxna soxna jaaratullah incarné te ci kooku rek laa wax yow mii ci sa entourage am na ñoo xam. waaw te ñu nekk ay ndaw nag nekk ay xale. gis nga soxna Ramsu nit su jógee pour dëgmal mbaax mbaax lay def. Mhm. su jógee pour sàkku ngërëmal sunu borom jàll ko ci borom këram. ci loolu lay dox soxna su tey Sénégal dañuy jël lépp xëpp ko ci benn minorité mooy réseaux sociaux yi ndax tey moom moo yor buzz bi moo yor coow li am na ñoo xam ne dépassé nañ foofu soxna Ramsu tey jii nii parfois nag. jigéen dina liguey liguey liguey liguey ben affaire bu ndaw comme domam ñew am nu am nu men rek ñu ñu don dajale liguey moy li ngay wax ni mhm. c'est ça qui m'a fait mal. ndax dafa bari. ndaxte léegi di nga yar nag mbedd mi yàqal la léegi di nga yar mbedd mi yàqal la soxna Ramsu. Mhm. mais dal bo bëggee dégg dëgg jigéen nday mu ngi am. te xale yu ndaw ñu koy liggéey seen biir kër yi jigéen ñaa ngi seen biir kër yi di muñal seen borom kër yi ñu ngi toog seen biir kër yi nek ay xale yu tudd ñu leen influencer ñu tok xam lu ñu xam jàpp ñu jàpp. deug la nday ju liggéey mom so bëggee deug deug lu may jankontel la au quotidien ndax dama bari dugg-dugg lu may jankontel la euh ndax. dañ ni du ma mag waaye naan naa lu mu dee dee soixante dix pot yu bokkul ci ay kër yu bokkul. dëgg la kon am naa benn expérience tuuti ci loolu. dëgg la Assane euh, comme li ñuy wax rek liggéeyu ndey moom dafa nekk loo xam ne dafa yaatu lool. te mën naa ne dinañ ko dinañ dinañ ci yàgg di waxtaan. nekk ci biir jigéen yëpp. buñ koy wax fii ci plateau bi tey nekkul fii rek lay yem kon mm-hmm. donc du benn yoon du ñaari yoon lañ koy def mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. mais pour nga xam ne rek yow. jigéen yàlla moo ko suturaal. jigéen bi baax ak bi bon yëpp jigéen la rek. ki nga xam ne laa la wax nii mi ngi xëy.

dama gis bi muy bi muy bi muy bi muy door a am bi muy bi muy door a am borom kër muy door a am ba dem université borom këram yàlla dafa def ci jamono yooyu noonu mu ñàkk liggéeyam borom këram mu nga doon liggéey ci benn société mu ñàkk liggéeyam mhm. non seulement ndaw si donte bourse bu bëriwul mais gis nga bu jotee rappelam ba pare en plus day dem day def ay ménage difa am dara jël dëkkuwaay si supporté ko waxuma de dama ndaw sama xarit la mu jëkkëram mu may témoignal ndaw ci lo musuma ko ŋaan jëkkëram mo xam ne kii sama jigéen la daf def ma boobu témoigné ni ma moy fay liance moy jënd ci moy maa moy moy def lépp yaa ko comprendre parce que koku fi nga xamanté mom dama ko am dama ko bolol ben ben ben way bu doon def ay cour cour cour anglais la xamante gel bi yàgg ma mais ndaw si tay ji ni ma wax yow ni ni jëkkëram fa mu nekk yor ko ji liggéey ndaw si mo fa investir. ba tay jëkkër ji machallah machallah macha di moma ji li ci ci soxna te soxna nek sama xarit te soxnaam loolu musuma ko ngang te nee na man maay nitam. man moom wax dëgg yàlla ci cadre boobu boo gisee ma ci souligner di ci dellu siwaat ci ginnaaw di ci mm-hmm. dellu siwaat mm-hmm. mooy li ma li ma jaaxal ci mm-hmm. li ma la wax sànq rek à chaque fois nii ñiy dàq def tooxi na fii nii ñooy taxaw ci sit yi bu dul foofu tamit ñooy taxaw di jëmmal seen bopp naan seen liggéeyu ndey la te ñoom tooxi na rek la ñuy def tooxi duuna boobu noonu sa ndey liggéeyalu la pour nga koy def nday ji la liggéeyal pour nga baax la loo am mu lew la loo am mu nga teg ko ci yoonu siraatal mustaxim mu nekk lu baax waaye ñi fi dàq génne seeni awra dàq fee njuuj njaaj di am farmason yi sax nag dañuy dem sacrifice def du n'importe quoi ñi xamul ni sama genre gi fee la ñuy taxaw naan liggéeyu nday la dañoo xam lan la def ba am ko nday bi liggéey mm-hmm. di xëy di sonn mm-hmm. ndax majeure partie yëpp ñëpp ñu ngi liggéey macha allah sunu maman yëpp ñu ngi liggéey mm-hmm. mais ñenn ñi ci bëri amuñu liñ bëgg ci seen doom ndax tey fii dangay gis nit liggéey ba sonn doomam xëy nekk nekk fii di def ay affaire am ay problème dañ naan ndayam la fekk na ndayam tàggat na ko liggéey na ba liggéey jotee

yàlla fi na yare nga juddu ba toll nga toll embrasser benn vie embrasser benn vie ba gàkkal sa waajur ndax dañuy doom su bonee ñu ni yaay mhm. booy mhm. su baaxee ñu ni yaay jël mais am na aussi le sens contraire am na ñu fi nekk tamit ay xale yu ndaw yoo xam mën nañ li mën a yow yow yow gars mën mën nga ko bu baax

di jomm kon ñooñu dañoo jommul rek ku jommul nag dara da naqaree defar société loolu lañ naan du yaay ju baax kese kon mooy jur doom ju baax mm-hmm. ndax doom moom liñ naan géej ji rek mm-hmm. dangay weer rek mm-hmm. waaye xamoo kon yaay mën na baax jur doom ju baax yaay mën na baax jur doom joo xam ne da koy ëlëg kon yàlla nañu yàlla dolli sutura defar ñu jàmm defal ñu wër ak wër la sam njaboot jëpp ci barki Seydina mohammed maa ngi jaajëfal suñu mbokk internet yu banlieue production yi di leen nuyu mhm. di leen remercier ci vue yi mhm. ak ci abonnement yi surtout mhm. kontaan naa si yéen bu baax a baax a baax di leen jaajëfalaat di leen wax ni maa ngi leen di tàggu ci seen prochaine émission incha allah seen numéro 4 léegi du yàgg ma bàyyi la Assane nga tagu waaw ah, may nuy wat mbokku internet yu Balla Production di wax ni ngeen gën duñu top ci sunu programme tax bari nañu machallah fi nek ni ñu ngi liggéey liggéey yu am solo ñu ngi ci ci koor gi ñu ci ak koor tolof tolof. Mhm. ak koor emploi ñu ngi ci aussi ñay eh, njaay fëgg jaay ñu ngi ci tamit les besoins ak DJ Lune xam nga ñu ngi ci programme yu bari bari ngeen gën duñu top parce que programme bi ñoo bari te lepp nak ngir bëggal leen. ndax yéen ñu gunge nag boot ñu ba ñu agsi fii kon amatuñu droit def leen lu dul liggéey kon am nañ aussi yu bëree ñu ngi koy préparé kon ngeen bind ñu topp gën a yokk abonnement yi gën a yokk aussi tamit seen suggestion yi ndax émission yi tamit bu ngeen def tamit pour yéen la lépp loo leen xalaat kat war nañ koo yokk wala def ko ngeen envoyé ko ñu xool ko xool ñu ci waxtaanee jaa ngeen jëf kenn du yéen jërë ngeen jëf. waaw Asana maa ngi kontaan di leen di leen jaajëfal di leen wax ni ba beneen yoon incha allah mm-hmm. waaye dama fàtte woon souligner tuuti rek dafa am sama jabar joo xam ne nii moom xam naa ni ba ma waxee ci liggéeyu ndey dama ko ci waroon a laal <laughs> ndax jàmbaar la jigéen ju mën góor la maam Faati Saw maa ngi koy nuyuwaale de mm-hmm. passage yaayu bébé saalif ak Modi ak sama taaw góor bi dooroon nuyu naa la bu baax a baax a baax jigéen ju mën góor bi